nekkoon di liggéey ci benn société bu ñuy wax al makaaru al asma mhm. société bi mu ngi basé au niveau de yoof Tongoor Yoff mhm. def ñu fay liggéey des années mosuñu fa am benn jafe-jafe wax dëgg neex yàlla ba récemment mois de janvier passé ñu jóge Dakar ne dañuy dem géej pour dem liggéey nappi dem nappi mhm. bi di nappi bon gis nañ ni suñu commandant bi dal na ci jën boo xam ne maar détaali foo ko natt ci wàllu capacité rek weesu na ko euh, ci li ma bëgg a wax pour mu leer maanaam mooy man mi nga xam ne man marin laa mënuma la wax ne jën bi nii la toll ci wàllu capacité ndax bëri parce que jën bu bëri hmm. euh, li nga xam ne moom moo nekk machine yi nga xam ne ñoo censé pour xëcc filet bi pour yéegal ko hmm. euh, bon dem nañ ba gis ni machine yi kat nekk ci bato bi te ñu defaraale ko moom ak bato bi. Mhm. amuñu doole pour yéegal jën bi. ndax diisaay ndax bëri waay. Hmm. ñun marins yi ñu porté wu volontaire euh, dugg ci biir xar poosu mbaal bi di tibb jën bi di ko def ci ay kees di ko yéegal bi nga xamee di dem na def loolu lu tolloog vingt deux heures et demi wallahi vingt deux heures demi ba ay environ vers quatre heures et demi yéen a ngi ci ndox ñu ngi ci biir ndox mi. jusqu'à 6 heures 0 minute lay filet bi di soog a yéeg. ñu jóge ci loolu man je dis que loolu duma ma ci jaajëfal kenn parce que doomu aadama sooy def sa liggéey lu ne mun na la cee dab. et li ngeen def noonu risque la itam. waaw c'est vrai que risque la mais man je dis que pour man personnellement bi ma koy def ak samay morom ya fa nekkoon defuñu ko woon pour euh, lu ci mel ni comme risque. dañ ko defoon soo seetaanee vidéo yi sax dangay gis ni marins yi bi ñu koy def ils étaient tellement heureux maanaam ñu ngi kaf di foo di ree parce que ñoom dañoo bëgg sax ñoom maanaam liggéey bu demee noonu boo xam ne amul taxaw mm. affaire bi di daw fépp ñëpp di liggéey mm-hmm. boo ñu nekk ci loolu ba yàlla def jën bi yéeg ci kaw donte def nañ ci ay heure ba pare léegi jën bi yéeg na bi jën bi yéegee à l'aide des machines mm-hmm. commandant bi jël décision le commandant du, commandant du, du, du navire mm-hmm. mu jël décision ne dafay ñibbi si Dakar ñun marin suñu yoon nekkul ci yoon yenn décision yi nga xam ne moom la concerné mm-hmm. parce que moom moo nekk chef ci bato bi décision bépp bu mu jël rek ñun marin mënuñu ci leneen lu dul exécuter ko d'accord bon ñu toog fekk si ko ci muy dep mu départ di daw mu ñëw ci suñu chef parce que marin yi dañuy am ce qu'on appelle bosco mm-hmm. mu ñëw ci bosco bi expliquer ko ne ko comme quoi que dama bëggoon ngeen jël jën bi ngeen wàcce ko ci suuf ñu ne ko ah mu waaw ñu ko waaj aussi itam ñëw nañu jël leen jën bi commandant bi ngeen jël jën bi wàcc ko ci suuf dafay ñibbi dakaar su ngeen paree ngeen raxas bato bi su ngeen paree ginnaaw mbaal bi dañ ko xaroon ñu yéegal ko ci kaw ñu defaraat ko. ñu jël jën bi wàcce ko ci suuf comme ni mu ko bëggee moom. Mhm. mu départ di dem. ñu pare ci loolu raxas bato bi yépp defar mbaal bi jël mbaal bi yéegal ko ci kaw li nga xam moom lañ xaroon ñu ñëwaat ko. arrivé à Dakar le trois février passé. doomu patron yi patron bi ci boppam ñaari doomam ñoo fa ñëwoon ak benn huissier de justice ak euh, leur comptable mhm. leur chef comptable ñoom ñëpp bi ñëwee ñu taxaw ci li nga xam ne moom mooy salle de poisson bi foofu la waxtaan bi amee woon mhm. commandant bi ci la xamale ni moom indiwul bato bi comme quoi que ni marin bi moom moo bañ a liggéey. moo tax mu ñibbisi. moo tax moom mu ñibbisi te moom moo jëloon décision wu boppam pour ñibbisi. te moom moo jëloon décision wu boppam pour ñibbisi. allez léegi moom bu dugg. bi mu ñibbisee dafa dugg si port Moldis. bon non ban moyen de transport moom moo ko andi fi ngeen doon pêché ba muy ci kii bi. moyen de transport bi mooy bateau bi. ma foog ne ma ne fa bàyyi kan moo resté foofu ci. non non kenn resté wu. équipage bi yëpp ñëwaat équipage bi yëpp ñoo bi yàlla defee ñu ñëw. bon moom pour défendre son poste de travail mu jaral ko mu ne carrément man amuma ci benn responsabilité marin yi ñoom ñoo bañoon liggéey waral kon ma ñibbisi mais chef bi aussi tamit basé wu ci loolu ba licencier les seize les seize marins yéen newoo newoo leen fa si ñu ngi fa woon taxaw lu tax défendre leen défendre nañ suñu bopp wax nañ li nga xam ne moom mooy dëgg gi mais aussi tamit chef bi c'est un égyptien il a voulu défendre le sang égyptien raison pour laquelle mu sacrifier les seize sénégalais. en commandant moom du sénégalais quoi. le commandant c'est un égyptien. ok. raison pour la laquelle ñu sacrifier les seize sénégalais. d'accord sacrifier nga leen dàq nga leen la je suis d'accord avec vous parce que yow yaa moom sa alal su la neexee nga liggéeyloo nit ki su la neexee nga dàq ko mais fay ko àq ak yelleef am déet nga retourner après nga dem nga ne dangay fay àq ak yelleef ba ñu dem ba commencer di calculer les droits un moment donné nga ñëw nga ne bon fayatuma. commencé woon na fay. non non commencé woon na di fay c'est-à-dire que maanaam fayoon nañu lu ci mel ni comme euh, suñuy weer yi ñu daggoon wàllu congé bi ak aussi tamit euh, li nga xam ne moom la ñu jotoon a liggéey foofu noonu muy les douze jours. bi mu ñu ko fayee ba pare après nangootul fay dara nen du fay droit du fay domage intérêt du fay préavis mais après man li ma jaaxal mooy maanaam ci ci base bi lan la. ci lan nga ko teg ba tax doo fay. da ngeen jàpp ne injustice la. dañ leen sacrifier dàq leen ci lu dul yoon. effectivement.